ñom ñoo joggé ci élection locale yi ñu génn 23 janvier ba ñu ñu euh maire yi falu bees nga xamné ñi ngi à tok ak ñeneen yi nga xamné tam falaat nañ leen muy les maires réélus mais conseil municipal yi changé na parce que y a de nouveaux conseils même bu dé mm-hmm. maire ba fa nékkon falaat nañ ko amna yeneen conseil yo xamné ne xëy ñoo tok conseil mm-hmm. municipal ñooñu dañuy ñëwaat mm-hmm. peut-être jaar ci yeneen liste etc etc mais aujourd'hui l'enjeu c'est que euh, nous euh, avons ils veulent de la rupture. Mm. maanaam na pas changé na yëpp parce qu'il y a eu énormément de discours autour des collectivités locales il y a eu énormément de litiges autour des euh, collectivités locales la manière de gérer surtout à askan wi wala euh, nu ñu koy tuddee bokk moomeel mm-hmm. mais surtout côté souf peut-être que si xëy na am na communes intéressé mais peut-être puis peut-être beaucoup à ñuy li ñuy gën ni soxla mooy ñi ñu fal bees maire wala président conseil départemental wala sax ni nous falaat je pense que les ñuy xaar ci ni une ñu rupture indi beneen façon doxalin. c'est vrai. et là ce sera ce sera un enjeu de taille. oui un enjeu de taille parce que yàlla dafa def aussi ñu jëm vers des élections mhm. législatives. déjà présidentielles dans six sept mois. donc waaw donc léegi nag seen maturité. Mhm. faut lañ koy xaar mooy ndax dañuy ñëw dans l'action. Mhm. fi ñu leen fal ñu toog fa pour liggéey wala dañuy dugg directement ci mbiru politique mooy di préparer pour mhm. élection yi war a ñëw après <laughs> parce que loolu aussi c'est un problème man mhm. je pense que tey li war a gën a yittali ñi nga xam ne ñoom la ñu fal mooy ñu def bilan la fa nekkoon mhm. suñu ñëwee def bilan euh, l'état des lieux oui l'état des lieux daal di ñëw xool ak ñi fa nekkoon bu fekkee dañ leen a wuutu ñu ñëw toog ensemble xool la rek lan moo fi nekk lan lañ fi def pendant ces sept ans. Mhm. lan moo fi des et cetera lan lañ ñu war a projeté wu ñu réfléchir si daal di ñëw communiquer surtout ak ñi leen mhm. fal. Mhm. Euh, doog a commencé jublu ci liggéey bi. mais est-ce que buñ ñu defee état des lieux du indiwaat coow parce que peut-être du ñàkk ñu gis yenn yenn mbir yoo xam ne peut-être bu ko siiwalee également. Euh, si nga Simon ña ña ña ña fa nekkoon peut-être. Euh, ah bon c'est ça notre problème mooy tant que jànguñu loolu nag. duñu avancer. développement Sénégal ci loolu la tegu. Mm-hmm. mooy gis nga manque de transparence boobu. Mm-hmm. ak ñëw fekk parce que yow imaginez quand tu hérites d'une difficulté boo mm-hmm. ñëwee tey fekk man ma doon gérer dara. li ma gérer baaxul. dagg daan suuf yi jaay nu mu ma neexee. budget ba def naa ci lu ma ne waaw indi la ay jafe-jafe bàyyi fa yow nga ñëw daal ne boo boo wanee li ma fa bàyyi mën na indi coow léegi yow nga hérité loolu mais doo def lu baax. Mhm. te plus tard yow sa jëf dafay ñëw en fait li ma liggéeyoon ci lu bon la dañuy jël ñu dugalal la ko. Mhm. donc loolu aussi dafa jar a bàyyi xel mooy que ni booy ñëw defe naa balaa ngay toog fexeel ba saytu li fa nekkoon ba mu leer après nga doog a commencé itam ñu xam ne yow fii nga jëlee mbir mi boo fi jógee itam fii nga ko yóbbu. Mhm. et ñi fi nekkoon nag ñu reconduire leen ñu bañ a fàtte aussi. peut-être daf ñenn ñi dañ leen a wóolu. Mhm. ñenn ñi du sax dañ leen a wóolu mais ci liste yi ñu nekkoon moo leen reconduire. donc loolu lu jar a bàyyi xel la. Mhm. ñu jublu ci liggéey bi parce que gis nga Simon des fois malheureusement man commune yu bari da ngay ñëw. Mhm. on reproche tellement de choses à nos maires. nos élus. du ñu recevoir nit ñi. duñ leen gis. duñu te te te li ma jaaxal. dans les pays développés inaccessible dans la semaine am na benn jour bi nga xam ne ku mu neex mun nga xëy ñëw inscrire ci liste ñëw toog ak maire bi waxtaan ak mhm. parce que maire bi yow la fi nekkal yéen a ko mhm. fal mhm. soxla yi wala li ngeen di gis te moom du ko gis parce que yéen dox ci dëkk bi damay xool ci quartier yu nu dëkk comme Grand Yoff benn dame euh, keroog mi ngi may souligner ci terrain bi fu mu nekk lycée bi ci ginnaaw xale yi nga xam dañuy def naka sudul noonu di fa daje di tox ay affaire ak yu mel noonu yoo xam ne commune bi peut-être moom euh, doxinam du mën a yegg foofu parce que foofu c'est enclavé mhm. donc am na luy xew ci sa gox te doo ko xam du ko xam donc ci wàllu sécurité ci wàllu nangam ak nangam nga war ci liggéey parce que tamit taxaw euh, naan euh, nu ñu koy waxatee état bi moom moom lii et cetera mais dafa am le minimum nécessaire boo xam ne war dañ ko mën a liggéey parce que ñu bëri ci compétences la ñuy compétence yi compétence disons transféré transféré après bëgg indi benn amalgame quoi jeex na mais mm. dafa am am loo xam man dama naan en tant que citoyen y a des citoyens yoo xam ne kenn falu leen. et mhm. pourtant ils posent des actes ci commune yi de te fekk kenn falu leen. donc ñoom ñooy gis ne lii nekkul yoon wala fii dafa tilib ñu jóg. def seen opération et cetera. ñenn ñi am moyen dindi def ci école yi. donc lu bëri citoyens yi ñu ngi koy def te amuñu ndombal tànk donc képp ku nga xam dañ la dénk defe naa cette conscience citoyenne. bi nga xam ne moo lay jubal ci conscience professionnelle par rapport ak li ngay liggéey. Mhm. loolu dañuy xaar ñu gën jublu politique politicienne bi nag malheureusement. ñu dans le débat sénégalais waaw kooku moom c' est toujours présent. c' est lépp lépp lu ñu indi rek da nga gis nit ñi des fois dañ koy politiser et c' est dommage. Mhm. parce que tey décision yu nga xam ne dañ koy jël sax mu war a amal njëriñ askan wi wala ñu war ci mën a toog discuter de manière intelligente mooy que ni li baax li nga xam ne mën na indi safaan ñu séparer et cetera mais da ngay gis ne. des fois xol la ñuy jëlee yenn mhm. sujet yi mhm. et loolu nag dafay indi yàq parce que dafa jur en haine bobu nak que ce soit au plus haut niveau ba ci suuf da nga koy gis. muy ci mhm. commune muy aussi ci sunu gouvernement yi des fois liñ ñu leen di reprocher ak li ñuy tuddee wala les activistes est da ngay gis benn maladresse. dans le mhm. discours wala dans les trucs yi nga xam ne dañ koy poser mu jëm ci loo xam ne nag ñëpp ko bokk donc man dama naan. Euh, nañu gën a dellu siwaat ci conscience citoyenne boobu gën ko liggéey. Mhm. xam ne njëriñu askan wi mooy suñu njëriñ ñun ñëpp. donc lépp acte yu positive ba pare di dégager ay ondes positives et cetera jéem a daal jublu ci li nga xam ne moom mooy suñu développement. parce que leneen luñ fi teg rek ci ay jafe-jafe lañ jëmaat. Mhm. Euh, peut-être le temps d'accueillir euh, Fatou Abdou Ndiaye yaa ngi woon ci weneen wàll. Lamine tamit dem na ci weneen wàll yow yow wuutu nga ko ñu lay ñu lay nuyu. di la di la di la dalal maa ngi lay fay baax si bon alors di nuyu gars yi ñëpp Cheikh Oumar Talla namoon nañu la. Ah, waaw <laughs> yaa ngi enjoy victoire. si biir ma jàpp nag <laughs> tooy laa si nuyu la Simon nuyu gars yi ñoom ñëpp comme ni mu leen fekk ci waxtaan bi. Mm-hmm. Bamba nuyu également Bokar. waaw mais waxtaan wi waxtaan yu mairie yi la ah ak euh, équipe municipale yu bees yi nga xam ne ñu ngi leen di installé. ñi ñu fal bees ak ñi nga xam ne dañ leen a falaat dañ leen a réélire. Mm-hmm. je pense que affaire bi waratu mën a jafe parce que quand même ku ci nekk tu, tu, tu, es, tu allé en campagne sur la base d'un programme. Mhm. Quoi qu'on dise. Même si vous êtes Sénégalais, ça, souvent nous avons pas le programme. Mais je pense que maire, vous faites respecter son engagement sur ce programme. Mhm. Et puis, si vous le maire coalition, vous mhm. êtes maire euh, liste, mais maire de nga fatou yëf yi dafa war a mën waaw euh, loolu c'est très important Simon. xam nga dang ko bind nga né euh, les les manam ñi nga xam ne ñoo jité les collectivités territoriales à l'épreuve mm-hmm. mais li épreuve la. parce que épreuve weesuwul ñu ci bari ci ñom bi moom mooy première fois. boo xamante ne am nañu li nga xam ne moom mooy jiite maire mm-hmm. ñu ci bari da ngay jàpp ne sax expérience bi des na mm-hmm. donc épreuve la ci ñoom défi la ci ñoom et que ce défi ñoom amuñu benn droit pour pour pour pour décevoir amuñu droit de décevoir parce que euh, du xaalis motax ñen ñi ñu tabb leen parce que bu doon xaalis am na ñoo xam ne dañ doon xëccool euh, euh, kon ñu bëri ñu faaw def nañu fal lu ne te nit ñi choisir ñu leen mhm. du peut-être ay at moom moo ñu def ko pour la première fois ñu dem ci élection yo xamantene la jeunesse s'est distinguée quand même ci élection yi pour mhm. jiite ay gox ak goxat mhm. pour la première fois ci histoire politique du Sénégal dañ ci wara jangat lu bari du peut-être njàng parce que am na ci ño xamné du jang moom moo ñu jité leen donc bo dindé jang dindi alal dindi ay da fay mhm. des nak li nga xam moy confiance de la population cette confiance de la population mom la askan wi am ci ñom mhm. amoon le choix pour choisir Cheikh Omar Talla ñu ne dire Bamba la ñuy choisir mhm. mais lolu war Bamba mom dafa war a def tout ba nga xamantene euh, du décevoir ñu nga xam ñom ñoo jël seen ay baat dem jiital ko et que ñom li nga xamantene tay mo len di xaar dafa bëri bokku na ci gox yi jafe jafé yi ñuy am éclairage public insécurité c'est neuf compétence de transférer buñ ci yamee rek ñom am nañ liggéey bu len wax jarul sax ñu dem feneen parce que bu fekkee cadre de vie urbanisme moom la dëkkuwaay yëpp di jooy mhm. dëkkuwaay boo dem ba ci Dakar Plateau bi nga xam ne ay jamono ay tubaab la ñu woon ndax fépp tali la sax mhm. dañoo am problème mhm. rawatina nag nga dem ci banlieue bu Dakar rawatina nga dem ci région yi nga dem ci presque plus de 537 communes eh, dem ci li nga xamante ne moom mooy département yi si 46 yi bu ci nekk rek am na loo xamante ne défi la bu leen di xaar rawatina département yu bees yi nga xam ne moom mooy comme peut-être Kër Massar yàgg am ay jafe-jafe kon ñooñu mbir mi daf leen ko war a jaral. tout à jaral leen ko moom mm-hmm. mooy ñu ñu xar ci seen tànk tubéy gis ni jiite collectivité locale. dafa am ku mos ne buñ la tabbee sa askan dañu war a tiit sa mm-hmm. njaboot tiit. Mm-hmm. senegal dañ lay tab tabb nit ñi la tàcc.

caxat-caxatee suuf yoo xamante ne dañu koy dagg fu nekk yaa ngi comprendre bu boo ko jox ko ñoo xamante ne day leer na ñoom ñooñu ñoom ñoo ciy am bénéfice parce que ñoom ñoo koy jaay ñoo koy caxat-caxatee kan lañ ciy tudd ñu ci ñu ci bari ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite collectivité locale yi mm-hmm. seen responsabilité moo doon préserver loolu nga xamante ne moom mooy le foncier bi nga xam ne Sénégal am na ko te ñu ci bari ñoom la ñu koy ji ñaata maire boo doon cité ci ñi nga xam ne ñoo fi jóge mm-hmm. ñoo am ay plant ci tribunaux yi dem ay procès mhm. am ci ñoo xamne sax tëj nañu leen tout simplement parce que dañu jël suuf caxat-caxatee ko mhm. donc lolu nañu ci bàyyi xel bu baax baax ci souf soosu ba pare épreuve bobu nga wax li koy firndeel mooy dañu leen a élire c'est vrai que askan wi ñoon élire mais am na ñoo xam ne ci ay liste lañ jóge tey dañu élire benn candidat parce que il est de la coalition Yewwi Askan Wi ñu élire keneen parce que il est de la coalition Gëm Sa Bopp mhm. ñu élire koo xamante ne la présence de Bougane ci campagne bi am na lu mu ko apporteel ba ñu élire ko mhm. ñu élire koo xam ne la présence d'Ousmane Sonko am na lu mu ko apporteel mhm. élire koo xam ne tout simplement parce que il a toujours confiance au président Macky Sall ñu élire la léegi nag épreuve bi moom mooy dans presque cinq mois dañuy dem ci élection législative et que gis nga bu ñu demee ci élection législative yooyu xam naa Evelyne Mandiouba mu may laaj saako saako la may doyee na xaar ma yeggale ma daanal. <laughs> Ah, ma yeggale ma ma yeggale. donc donc donc sinon, <laughs> ah, ah. euh, euh, bu ñu élection législative c'est-à-dire épreuve épreuve bi xam nga lan mooy lan. Mm. dañ leen tabb parce que dañu am confiance ci ñoom. parce que mm-hmm. ils ont peut-être longtemps travaillé ci seen ay mm-hmm. communes. Mm-hmm wane fa ne dañu bëgg commune bi ñu tabb leen. mais dañ leen tab également parce que dañu am confiance. confiance ci liste yi nga xamante ne ci lañu ñu légui ces listes dañuy dem élection législative. Mhm. pour le moment ñi ngi wax peut-être une large coalition de l'opposition. parce que déjà am na ñu nekk maire mais certainement ils seront sur les listes des législatives mu nekkaat nak benen et même bu ñu nekkul sur euh, des législatives c'est-à-dire que yow dans 5 mois. Mhm. ñom bay bo ñu daw lu ñu mën. ñu mhm. baral seen loxo lu ñu mën. parce que baral seen loxo lu ñu mën mom moy manam li ñuy liggéey mom moy tax dans 5 mois ñu ne ah pourtant ki ka tasul suñu yaakaar. mais nak xamna naa bu ñu choisir waaw nañu bar rek Simon bu ñu choisir dañ naan tasul suñu yaakaar parce que dañ amoon ci ñom confiance. <laughs> dem indi fi tel ou tel ou tel autre dans une telle localité. Hmm. donc en espace de 3 à 4 mois il commence quand même parce que nit bu commencé def di nga xam ne mi ngi def ay djégo donc hmm. war ñu sax nek di fétu wala nek ci li nga xam moy mooy mbumbaay gi wala nek ci euphorie parce que jël nañu. mais nak mais nag peut être bu mën nañ leen may peut être période de grâce parce que fi ak 5. 6 mois législative bi euh, le temps que ñuy def comme li euh,

tay liste bi mom moko porter liste bi da fay dem élection législative mhm. am nañ ci ñom espoir parce que dañ leena sas mhm. sas leen moy lima wax sank mhm. muy ñett yo xamantene ne dañ daan xaar ni nit war na ko mën am pour ñu jox ko kon am na ñoo xam amuñu ko te dañ leen ko jox pouvoir ko opposition parce que boy wax souvent dañu fa ne opposition kese mais même pouvoir bi am na ñoo xam dañ leen confirmer am na ñoo xam dañ leen indi parce que tout simplement dañu am confiance ñom c'est le moment ñu liggéey pour les trois premiers mois sax bu doon ñetti wër sax nañu wane xarañté ak bëgg ak liggéey boo dina tax confiance bi gëna continuer te souci nak ñu bayyi ci xel dara

dañuy demaat élection locale dañuy demaat élection locale ku def woon tey lu bax tay gàcce la ngay am rek. gàcce mhm, mhm. Euh, c'est important waa léegi yónnee la événement bi waaw <laughs> chapeau <laughs> boobu <laughs> peut-être euh, sujet bi également li tax li tax mu intéressant mm. c'est que euh, dégg nañu at yi passé même budul at yi passé sax peut-être euh, ces derniers mois mm. en tout cas dégg nañ yu bëree bëri des des populations yoo xam ne déggootuñu ak seeni ay maire ak tout un discours boo xam ne peut-être moom moom moom lañ ci def donc ñii nga xam ne ñoo toog ak yeneen équipe même ñu ñu falaat ñoom ñëpp je pense que erreur waratu leen en tout cas euh, mandat bi erreur waru cee mën a am bu ñu jàngatee en tout cas ci erreur ñi passé waaw Simon xam nga lolu euh, likoy andi. moy mm-hmm. euh, souvent bu nekkee ci ben tension sociale. Mm-hmm. nekk ci ben tension politique nekk ci ben li nga xamantene modi ben circonstance bo exigeante bo xamantene population bi. Mm-hmm. ñom ñoy soxla di saytu di xam li nga xamantene moy seni seen ak seni i droit. ah oui parce que waaw day toll foo xamante ne effectivement yàgg naa wax. ci né. un éveil de conscience. et la un nouveau citoyen. et la preuve et la preuve nous avons une population bo xam ne buy génn. di manifester contentement am. Mhm. buy génne di wane naqaram kenn du ko génne. Mhm. te bu war a delluwaat. à l' essentiel ça devient spontané. Mhm. loolu mooy tax nag fi mu toll nii ñi fi nekkaat. Euh, nga xamante ne mooy euh, les nouveaux nouvelles collectivités locales. Euh, da ngay gis ne li si am mooy parce que population bi ñoom ñoo xam seen i gar moom moom ñoom ñoo xam seen i waraf ñoom aussi ñoom ñoo xam seen i droit ñoom boo leen ko joxul ñoom ñu jëlee ji ko fa mu nekk. léegi nit ñi nag dañoo ci eh, àddina eh, dañoo dañoo mais mais mais c'est que le preuve y' a beaucoup de y' a beaucoup de circonstances. mooy parce que déjà les réseaux sociaux jëriñ ci rôle bu am solo. Mm-hmm. mais aussi euh, information légui les médias fa laa jëm information léegi kenn làqatu ko. Mm-hmm. mais aussi li ma bëgg wax mooy légui compétence dafa nekk loo xamante ne elle est devenue universelle parce que foo jaar nga am say compétence. pour mm-hmm. comprendre lu làqu ak lu laqul. léegi nag comme léegi ñoom te euh, li Fatou wax sànq am na bëri bëri yoo xamante ne du ma si delluwaat. mais comme ñoom dèjà ak nañ ñëwee parce que Olof Ndiaye dafa wax ne. nag ma nuyoo noonu laa lay fayee. xam nga ñoom nañu ñëwee mooy ñii mënuñu mënuñu mënuñu dañ fay yàgg. il faut que ñu ñu ñëw war leen leen am nga loolu gënoon a mën mënoon a am am nga ngeen am plus que cela kon ñun mën nañ ko sa à dire ñi nga ñëwee loolu moo tax population bi noonu la lay xaaree déjà ah, euh, ma ma wax ne nag amna ci si ñoo xamante ne que ñom am confiance seen askan ba seen askan wóolu leen falaan leen et j'en profite de l'occasion pour wax né officiellement ñun suñu suñu commune euh yëmbal sud euh tay lañ ko installer muy Bara et jàpp naa ne il a été réélu tay tey la waaw waaw notre notre ami et l'ami aussi de Cheikh Omar Tala man man sama xarit mais sama mère installé nañ ko waaw moom moom aussi est nañ ko tey. bu laaw bu Fandène. bu koy invité rek jotaan na écharpe bi ce matin. waaw <laughs> bu ko pourtant pourtant nag nee nee na chaque jour si si oto. ñun léegi lay dugg grand gueule kon Fatou mën ko waxaale. bëri na si <laughs> morom Baara bëri na si morom Sénégal ñëpp ñu leen di dégg mais nag Bamba. Baara comme ñeneen ñi am nañu am nañu liggéey de. voilà loolu laa bëgg a wax même ñoom seen classe am googu nga xam ne dañ leen a. faral déjà am nañu liggéey. liggéey bi mu commencé xool euh, Simon liggéey bi mu commencé si. waaw déjà une nouvelle équipe yaa ngi ko wax sànq mhm. municipal day

que euh, la mairie dispose des compétences différentes de celles de l'État, mais aussi des compétences complémentaires de l'État. Bien sûr. Pourquoi moi? loolu mooy. cela veut dire que aussi que maire bi na xamné ne amna lo na mom moko woté woté moo ko wootee ba ne ko ma. pour mën ko joyenti, yow aussi na nga fexé ba bul si jéem a kenn ko xamante ya ko tu koy rongoñ ko joyenti, moom parce que ya ko woté. Mhm. Loy moy lan moy déjà la première chose moy la cohésion sociale. Mhm. maire day liggéey ak si nga xamante ne moo di askan. Mhm. Xol jafé jafé fan la nga jëm ko joyenti. Euh, comme niko boka boo sang, un maire qui est injoignable ñaam maire boo xam ba la soxlaa dafa duggoon fi nga xamante moo di fa gars yi nekk si seen caay mu génne foo wax ak ñoom ñun gis nañ fi sax ay image yoo xamante ay ay maire yoo xamante dañuy dañ lay fekk nga teg sa sa ataaye hmm. ataaye mbedd hmm. lu ñu musul laal kaas yoo xam ne boo leen joxoon kaas ñu koy jëw daw ñëw di naan waaw léegi nag loolu noonu boo ko defee boo ko defee tey war ngaa xamante ne nag askan boobu nga dem set gi hmm. ñooñu nga war liggéeyal Sénégal la bokk abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification Sénégal la bokk la chaîne des grandes valeurs